ki nga xam ne moo ndongo daara ani ndongo daara ay sa waaye nag drapeau boobu dafa nekk drapeau boo xamante ni ndeysaan acteur de développement la drapeau boobu dafa nekk drapeau boo xamante ni c'est un véritable acteur de développement. muy koo un de ba mu dëkk ma nga fay social ak ci domaine directeur école chaque année dañuy am 100 est-ce que nous yomb chaque année nga am examen 100 loolu yombul loolu rëy na kooku yi ki nga xamante ni moo di l'incomparable l'infatigable l'homme social muy ki nga xamante ni moo di monsieur Abdoulaye Faye directeur école Daaru Karim ñu may ko loxo bu baax a baax a baax kooku mooy ki nga xamante ni moom moom moom bii la drapeau muy monsieur Abdoulaye Faye wàcc si ñëw bu ko defee jàkkaarloo Badou aja ay jërëjëf Ousseyn maa ngi lay kontaan bu baax a baax monsieur Alaaji Faye dégg naa ndawal guddi a foo làmb daj Abdoulaye Faye ak ñëwal ñëwal waaw waaw def ni ko waxee léegi am na solo kon dugal bu jagle yàq ndongo daara ngeen xam ne drapeau ki ngeen di bëri jàmbaar la kon bés bii yéen ñaar doo bëgg ngeen wane ci jom ak jàmbaar ak fulla ak fayda waaye Ouzin damay tàmbal léegi maa ngi ne xale bii bi nga xam ne moom mooy ndongo daara moom mooy roi des arènes ca Louga mu ngi nii kii mooy roi des bu Louga moom ndongo daara ndax daan xale yi Louga yëpp waaye ku muy dajal nag ah kooku nag moom mooy doomu jagle bi di dubal bu jagle di ndaanaan def ci làmb lu nekk dubal dama lay bàyyi nga dara ki nga xam ne moom mooy ndongo daara maa ngi lay nuyu bu baax waaw Badou maa ngi lay fay aouzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur euh, di nuyu waa plateau bi yëpp euh, di nuyu Eliman Lo di nuyu monsieur Faye bu baax di nuyu képp ku yeewoo Tëngéej rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax grand taala bi nga xamante ne moom laa àndal fii di nuyu ñoom Baye Moussa ñoom Kang Socé euh, di nuyu rawatina quartier bi nga xamante ne foofu laa yeewoo muy Guy Mouride di nuyu bu baax tonton Dia di nuyu waa kër ga yëpp euh, di nuyu sama tons Abdou Sarr di nuyu bu baax sama grand Biram di nuyu waa AIC Mango bi di nuyu euh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Kara di dem ba Saloum di nuyu waa saalum yëpp rawatina tund njafe-njafe di nuyu sama dëkk bu baax. waa jagle maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama staff euh, di jiital nuyo bi Moustapha Sène di ci teg Amadou Sarr Laayka de Pape Pape Sarr euh, Abdou Ngom di nuyu bu baax sama mbokku séeréer yi o fogole séeréer maxey naa nun to joka nuun a njal tam nu xa séeréer a refna rek maxey simnang to xooyam nu combane inchallah le 14 juillet roogo yàlla fiyana in ndam i féete in roogo yàlla fiyana in ndam ka moƴna koy waaga inchallah allah jërëjëf dugal bu jagle loolu am na solo ruwaa nga de comme ni ko moo Modou nekkee ndongo daara maa ngi lay nuyu. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen bi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Bargny gi di nuyu Iliman Lo jàmbur production mi nga xam si moom mënuñu koo fay ndax mbër su demee ba gis ko tëggal rek jox la avance rek kooku mënoo koo fay di nuyu sama mbokk mbër yi fi nekk yëpp di nuyu waa Louga rawatina sama staff staff ndongo daara am ma seen fay yàlla na yàlla taxaw gis naa ni ñuy ci man ñoo ya, ngi jël wona bu ne pour man ay mag jëmm xalé bu ndaw yéen bu yàqal seen lepp ñu dox topp sa gannaaw lo bëgg ñu def ci kooku mënu ma leen wax yàlla suñu borom ñu seen ci man yalla nañ ko gis waaw ñu nuy sama adversaire di wax ne lamb la ñu nuy ñu fi tew ñepp nak jëri def lool amna solo Elimane li rek mënoo doon gëna combat bi ndax ñom ñaar ay ndaanaan lañu ay barikat lañu waye nango daara kii maa ko doon utal combat waye koo o mu ne yii dóor bu jagle daa lu tax nga jël dóor bu ndax xam ko bu baax waa tamit di nuyu waa kër Ndiaye Lo kër Daouda Sarr ma seen fay di leen nuyoo di ko jox sama loxo sama teg si loxo grand Cheikh loolu di ci li ma leen wax rek sans rek mbër moom ku ko sa kër di ko jox muy lekk naan rek kooku mu ñu laa fay hmm. loolu neen yàlla na yàlla bàyyi seen fekk suñu njëriñ ak seen seen njaboot quoi waaw non kii li ma mooy mbër kii mënul sax bëggan maa bëggan maa sax mënul bëre lu ma bëréwul waaw mënul bëre lu ma bëréwul mënul bëre bis bu ma bëréwul mais hmm. naa la Dakar dañ maa xamul mais su ma teeloon na xam bëri yi bëri gën ko mën mais dama fay yéex a dugg si nag. Ndongo Daara yaa ngi si ñaata combat. bii mooy sama treizième combat. ah bii mooy sama waaye tàccu leen loolu waay. bii mooy sama treizième combat te benn defet laa am sama premier combat laa ñàkk. yow de jeexal nga Louga. waaw dama bëgg non xam nga xam nga question jeexal sax làmb la rek ay mbër suñu dajantee du yomb foo ñu jëflante mu neex ku sa morom daan. loolu laa gëm quoi waaye ndax bi. mbër la xam naa ko mbër la ma sàcc wax la jëral sàcc di ma wax <laughs> man ci dëkk bi laa dëkk di dëkk dëkk bu beneen dëkk de Sénégal gi laa dëkk de yaa ngi koy si naan maa ngi koy si naan moom man déggul mu wax li def laay def rek mhm. li muy def laay def rek lu mu gën ci bëre du ko jéem koo xam moom man sama ah. man xale bu ndaw am kàttan di portol di sama morom tol di góor mu mat sëkk di xool nit lu mu mënee loolu sama ko defee sama waa kër boo ñu ray ma de mais état de forme bi ko yor nii gëm nga ni mën ngaa daan duba bi tegle le 14 yàggatul le 14 yàggatul dimanche bi ñëw jël seen maa ngi ñaan ñëpp lu waaye mën a jàpp na nga ko bàyyi nga ñëw stade incha allahu rabbi ndax bis bi dafa war a quoi ci promoteur bi man di ko wax di wax di woo wàllu woo. loolu ci ñëw waaw dama ko dama may may may ma yeegale bu ma dagg. di woo waa Louga Louga yéen woo yéen wax ne bis bi dañ koo waral cee war a def mu bu doy waa ndax bi ñëw def nañ ko dama bëgg ñu tollanti woo di jël Louga di jël Ousmane Père Ousmane Ndiaye yow laa jiital nuyoo bi di sa loxo di wax booy bii si ngeen daan may dama bëgg ñu gën koo yokk ñu mën a ñëw loolu laa bëgg. a am na solo dugal bu jégle dégg nga nee na bii mooy wow koŋ bi. Badou man ba dee xale ba léegi mosuma dégg mbër bu dëkk Louga. Ah? kon kii su nekkee roi des arènes Louga kan la doon kan la daan Louga. nee na treize combats la def. ñim daan Louga laa bëgg a xam yan mbër la daan ba doon roi des arènes. daan na guy bu njaaj man nek na xale ba toll ni ma toll musuma setan sax combat bu ñuy bëre biir luga ah ñun fi lambu soso lañ dëkk doon ay doomi séeréer judo ci lambu màggee ci lambu ba doon li doon tay kon nekul ki moma ma jaaxal ci lambu te waxon na la ko budé ki moma wara jaaxal ci lambu ma tekki sama ah ñi may jaakar lool ñoko dakk bëre ñoko upp doole ñoko man kon man li dama koy santé yalla bu baax parce que man leen ma ay adversaire ba man biñ ki bi bi ma waxee gars yi am naa ko combat xam nga liñ njëkk a wax ñaanuñ sax ndam de dañuy ñaan yàlla bu mu delloo avance parce que yonent bi loolu lañ ñaan ñu ne yàlla bu mu delloo avance ma ne looloo jarañaan kon nag dama koy sant bu baax mais sant bi yëpp fii la yem suñ demee si biir géew bi ku mën sa morom naray waa dafa am lu mu wax rek nee na ba mu juddoo ba tey mu gis mbër bu dëkk Louga Louga soo demee ay ancien gouvernement ku xam seega siifur làmb ku xamul sa njaxat deg nga ko ma yoro faal xam nga ko ma raka jin ku ko yigul xam nga ko han ah? ñoñu ku leen degul xam nga leen Louga as mais nit ku ne fa nga dekk fa ngay defal dara nit ñi xam la man fu ma dekk dama fa def dara nit ñi xam ma ma fas ñew fi def fi dara na la yaa ngi may dégg man non lay doxé wa lolu yëggul ci xam nga ay wax lo bëgg wa dama koy wax limuy wax ni du ay wax lo bëgg sooy daf may wer dafa ma may wer la ko tof yàggatul affaire du wax jëf la man ku nekk xam nga man jëfkat laa man man jëfkat laa dama laa bàyyi nga wax ba pare man jëfkat laa man damay def man wax lu tuuti laay def jëf lu bari sama combat yëpp gars yi dañuy attaqué may noppi te su bés baa duñ duñ wax man damay wax damay jëf te lépp lu ma la wax fii xamal dinaa ko jëf man du ma pare du ma pare soo bëggee waxal wax moo ñu fi indi waxal. nga may wax soo pare pour lan may pare. duubal gis nga ndongo daara bu baax. gis naa ko bu baax. am na doole gis naa ko bu baax nel am na volume bul jaawale volume ak doole ba du kii bés bu ñu duggee ci géej gi ba laaj na ma tóojal incha allah. nee naa moo doole de. dama ne saaga yàkkamtee xeex la la ko dox si yàggatul lu wax ji bëri bëri jërul muy bëri nan bàyyi ba arbitre dugg suñu diggante ba génn. maa ngi yow doo nga fay des daay ñëw mbapat suñu ko côté. premier tour lay yem premier tour. xam nga li ñuy wax lëwal lëwal lañ koy def. laaj ko lim fa ñëw yëpp ndax finaalu na léegi dama koy laaj laaj ko loolu koy wax seen côté laa ñëw laaj ko loolu nag yi maam fan laa ko jële laaj ko loolu man nag yi maam fan laa ko jële ban drapeau nga yóbbu ak fan waaw dama lay wax rek dama bëgg déglu ma nag yi man fan laa ko jële internet yëpp ñu ngi fi drapeau boo yóbbu nit ñi gis nañ ko waaw dama ne la man nag yi maam fan laa ko jële yow am na loo xam si gis nga du yëfi góor xam nga ma yëfi góor man duma daw duma duma daw dama lay wax dama lay wax man duma daw kii fekkante nan làmb ba mu gisee poids lu dugg dafa daw wëqat maa ngi moom bokkuñu catégorie poids la lay def man poids lu def ren la ma doy xam ci àll boobu. baru boo xam ren la doy xam kon maag moom boobu. ba may jël ay poids lourd boobu raw gadu laay def. nonga dara temps moo ñu xaj. jël ay poids lourd raw def man yow. bi ñu bu ko ñu frein bi mu ay rek. wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi nekk yi ak yi di promoteur bi nga xam mom sunu nit la. Elimane Lo dafa nekk nit koo xam ne ñun si li ñuy yëngu saa yu ñu wootee dañ koy gis donc li mu def tey muy jël bés bi jagleel ñu ko kontaan nañ ci bu baax te jël nañ ko ak fierté te jour ba incha allah dinañu ñëw ànd ak waa Guy Murit yëpp ànd ak waa Tëngéej yëpp ànd ak ñi nga xam ne mooy sunu association ASEC nga xam ne tey euh, président comité d'organisation bi muy Diol Tafa Diol mi ngi ni lepp ci loxom lañ koy tek donc bu jour ba dinañ xamné vraiment wa Guy mourid ñew nañu. liñuy wax mbeur yi nak moy lepp liñuy def nañ ko def ci fair play parce que bëss ba bu jàllee benn vainqueur moy am ak ben vaincu donc lepp nañ ko def ci fair play ñu jappalé leen comme ni ko élément di défé mu sawar toujours di jappalé mbeur yi ñuy continuer di def liñuy def ni ko président CNG bi waxee légui représentant CNG bi nim ko waxee lepp loy def def ko ci yar ak teggin ñun ci éducation la ñu xamee mais tay bu ñu ñëwee ñu ne am na bu tudd ndongo dara te ndongo dara ku ko dégg xamné moy ko xamné da fay jang donc kuy sàkku xam-xam donc euh, double bu jaglé légui la wax né guy mourid la dëkk man guy mourid gogu fala soso donc ñom ñaar ñëpp sunuy nit lañ lépp li nga xam ne làmb ji laaj na ko dinañ ci dinañ ko dinañ dinañ ko def ànd seeg sunuy su sama sœur bi madame Aw nga xam ne moom directrice d'école la parce que tey lépp loo xam ne dafa touché ci école indaale nañ ko indi nañ ñuy jàngale ci école bi indi nañ benn directrice d'école moo xam ne nga xam ne fii la nekk Bargny muy Kamou Sadioum mooy directrice bi ànd ak samay soxna ayu ak euh, Oumou Kalsoum ànd aussi ak sunu photographe bu ñaawul bi muy Ardo donc ànd ceeg Abi Diarra nga xam ne moo représenté personnel bi ak Tafa Diol ni ma leen ko waxee. bés ba daal dana rëy dana neex incha allah ñuy remercier bu baax Khadim Thiam bi nga xam ne mooy euh, nit la ci ci ci ci Elimane nga xam ne vraiment rakkam la xaritam la léppam la donc damay wax rek lébu lébu sa sa benn soxna mi ngi fii muy ayu muy euh, ayu ayu fay jabaru maas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 diwoo woo Abdoulatif Coulibaly di woo Jaxate euh, di woo bu baax Babacar Sène douanier depuis Karang di woo Thio grand mécanicien Karang waaw di woo Kati Diagne kooku tamit ñu ngi koy woo di woo bu baax Moussa fay nga jàpp si billet bi boo yi mun a mobiliser wu dem stade waaw di woo bu baax albendoo yi di woo séegandoo góor gi sow di woo waa Rufisque yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina waa guy murit waa jagle séeréer yi fépp fu séeréer nekk tam nu o séeréer a ref na rek in way allah le 14 nu ndam ndamta in nga dana in rogo yalla fi fiyana in ndam inchallah no nga dara wutel wa di wo wa Louga rek di jël nuyo bi ko dox ci loxo monsieur Moussa Diop diko wax na ci japp Moussa Diop ñun yow lan am ya sun président ñun Louga yo lan am dañu bëgg nga japp kon ñu daan jappé boy yi mëna ñëw di wo Mamour Diallo Omar Bun Khatab Mbiri Sila Coro Ndiaye Jong ah Aminata Mbengue Ndiaye bawuma kenn di wax ñoom ñëpp nañ ci jàpp di dem ci diaspora bi di bëgg sama gars yi nekk ci Union Europe bi di wax ne am ma seen fay ñu ngi ci jàpp galaay Fallou Xadam am ma seen fay Ada bëgg Balla Njaxat Boy Sey yéen am ma seen fay ni ngeen ci jàpp ni ngeen ci gën a jàpp bu baax a baax mais gën nañ ci jàpp bu baax a baax a baax Cheikh John Sina gis nañ ci yaa ngi ciy jàpp bu baax a baax yéen waa diaspora bi yéen ci jàpp bu baax bawuma kenn moo bëgg nag liste bi dimbali rek xam man sama jàng soriwul alxuraan bi laa gën ma bëgg nga liiral ma ko waaw comme ndongo daara man alxuraan bi laa gën a foor quoi. <laughs> équipe montagne Nora. Ah. Euh, merci Elimane Lo sant Galas Galas sant Xadam sant staff bi euh, sama mag bu jigéen bi ah sant Siteu sama rak samay doomu baay yëpp sama waa koñ yëpp sant Pakala merci Serigne Ibra. Abdou Koumba euh, Diop merci Ousmane Ndiaye Sall Makan Mbeng merci beaucoup Baye Naar waa Kër Ndiaye Lo Cheikh waa Cheikh fi ma nekk merci supporters yi jaajëf. waaw di ma ñoom ñëpp daal leen wax bis bi seen bis la nañ ci baax a baax bi seen bis